là où nous sommes d'après la prestation de serment et de passation de service focus vers l'émergence et le développement du pays focus il faut que nous soyons focus il faut que nous xam fi ñu jëm xam li ñu bëgg xam niñ koy monsieur le président Ousmane Sonko premier ministre man ñaar rek intéressé affaire étrangère Mimi Touré si je pense bien dàmbooj bu ñëwee éducation ndax mooy sama problème mais balaa loolu ñu ñëw ci démb cérémonie bi seetaan naa lépp xool naa lépp mais des fois da ngay préférer noppi bàyyi mu avancer régime bi fi passé fi ñu yóbbu ñii duñ ñu fa yóbbu parce que mënul nekk bu benn ñu jiitee problème day am mais bu équipe jiitee problème du mën a am mënul nekk man gaw ma ne problème am ci gouvernance bi gaw mako quoi gaw mako xaw xëy yeen yéen ngeen gëm ko mais man gaw mako gouvernance bi ñu war commencer gouvernance locale moy ñun fu ñu jëm ak gouvernement bi ñun ñi doon xex projet bi liñ ci lire yépp est-ce que c'est réalisable oui ou non après les audits parce que faut audit am ku leen ne prip gouvernement bi mën na départ ni job job job nii déedéet pour l'instant ñoom wàññi dund bi dong la ñu mën te loolu décret moo koy def wàññi dund bi la ñu mën. ak ku ñu mënti fal poste boo mënti dem ñoom biram ak ñoom ñëpp ci yem foog ñu accélérer audit mooy ku nekk fi nga nekk foog nga auditer ko ndax dafa am lu ñu naan siru président xëy na yéen doo leen xool mais man je suis bien. dem leen ci vidéo yi démb monsieur le président Bassirou Diomaye Faye bi mu démé tak chaîne bi ba ñëw moment bi mu ab santé na ba xapa xapa ñëwaat taf tafal bëti toogaat concentré wu la ne allah akbar gaay dugg nañ ko parce que chaîne bobu da am yu bari yu mi représenter donc système anti système je ne dis pas Sonko de mais basirou jomay Faye même bu dee 24 heures soyez le bienvenu dans la grande loge maçonnique parce que la république est maçonnique c'est le système la république est maçonnique Nous, au Sénégal c'est une république non mais elle est maçonnique nous sommes dans une république maçonnique parce que dans est-ce que xam ngeen luy état des fois combat faut est-ce que xam démb ko installé basiru ku ku gunge Macky c' est non mais ñan ñoy état au juste ñan ñoy état kon état de di soog lo xamné ne kenn mënu ko bouger kenn mënu bouger état état ak nation bokul ñun peuple bi ñun ñay nation té ñun la nation ñun ñoo wara développer li gouvernement soxla pas li état soxla parce que état day nekk té équilibré dëkk bi au cas où Bassirou président démb la ko dugg bi mu waatee ba pare toog noonu takk ca xam la ko siro bi balancé cib gars yi dafa am lu ñu lay jam dafa am lu ñu lay dugal loo xam ne leneen la ndax baatin yàlla jox ko jullit de jox ko catholique jox ko ñii xam nga yàlla ko mu jox baatin banni banni adam la yàlla jox baatin banni adam dam leen xoolaat samay image de gars yi man ni may jang ak ni ngeen di jang bokul xam nga yéen yaa ngi ne ah li lañuy def dedet man ma nga ci yalla bu ko siru bi dugg yalla bu mu nek president du ism yalla bu ko gars yi dugg mais si même bo dul franc-maçon gars buñ la brancher da ngay ñew donc bienvenue dans la grande loge soyez le bienvenu soyez le bienvenu ñom ñep erreur yi ñu commettre yep ça va se régler après parce qu'à partir de Bassirou Diomaye Faye il y a na ko gens ci république bi pour bés bu Sonko faire des prestations de service mu def ko selon moom sa foi selon sa religion selon sa croyance. parce que nous sommes dans une république maçonnique donc laïque c'est que nous foog faire. nangu ko ñu d'abord balaa ñu am départ moo lu ci sëriñ si bokkul ak ñëpp bokkuñu si c'est bien beau nañ dem.

mais tey Ousmane Sonko premier ministre nga foog ne ku mel ne Amy Ndiaye Gniby wala Koura Macky wala ay Farba Ngom war nañu Ousmane Sonko ñëw war a def déclaration de politique générale am au mois d' octobre wala novembre ay Farba war a taxaw ci perchoir bi di wax ak Ousmane Sonko négatif il ne le mérite pas daam ñoo xam ne Ousmane j'aime trop le combat j'aime trop les débats d'idées mais Sénégal foog ñu nangu dara dafa am ñoo xam ne mënuñu si dara fu mu ni mu mënuñu si dara assemblée bi assemblée bi mérité wuñu jàkkaarloo Ousmane Sonko di wax quoi di jokkalanteeg moom mu nekk premier ministre ay kuram ak yéeg di taasu fii Amy Ndiaye ñibbi ak yi mu fi def saagante ndey yi femmes yooyu nga xam ne xamuñu sax luy assemblée ñun suñu débutants yi au lieu de ay députés, on a que des débutants ñi nga xam comprendre ñu dara assemblée tok na yëng-yëngaaral déedéet Ousmane Sonko ne mérite pas d'être devant cette assemblée nationale là Ousmane Sonko même ne mérite pas même taxaw Amadou Mame Diop toog ni yeng yëngaaral Ousmane Sonko di wax ci non non non Amadou Mame Diop war fa nek kilifa Ousmane Sonko ñeu di wax négatif négatif tout est à refaire ay ñom Abdou Mbow ak ñëpp faxas tout est à refaire non non non Ousmane Sonko premier ministre il y' a beaucoup de choses qui doivent changer parce que man du ma may ay espèce humaine ñëw jàkkaarloo Ousmane Sonko taxaw aussi perchoir bi yoon may leen lu nous neex ñu wax ko lu leen neex suñu xol yi di daggaat ay crise crise sociale crise d'anxiété non loolu nekkatuñ ci dañ nekk si une nouvelle politique c'est-à-dire le développement ban genre de développement ñun Sénégal nous fan lañ ko gars yi on a vécu vingt quatre ans de merde la dépression ñëpp doon ay sadique ba mooy Sénégal ñëpp ay sadique lañ il est temps qu'on apaise l'espace politique Daouda Diallo yëpp gars yi il est temps qu'on apaise tout ñu jël xaalis yi nag amnistie bi ma wax leen lu leer yéen ñi criminels yi xam nga man sama objectif lan la woon ne ñu fexe ba Bassirou Diomaye Faye waat laajal ñi may woo ñëpp ne naa leen na waat ba pare rek après on tout rek na waat ba pare. amnistie yeeg rapport Covid yeeg cour des comptes hey meer Nafi Ngom Keïta wala Falidou Keïta gars yi tous les dossiers seront sur la table Ousmane Sonko kenn bàyyiwu ko pour amnistie Ousmane Sonko liberté provisoire lañ ko bàyyee tous les dossiers seront sur la table. lepp lo xamne nak Sonko lako nit yi doon lolou sont isa fou yonam nekku si Sonko topul mais suñu justice rew gay ma ñàkk sama nday xaliss xaliss bi dina genn deureum par deureum deureum par ñaar deureum parce que dañu trésor public nouveau gouvernement duñ ci wax mais le trésor public fi mu nek. A ak loi budget bi ñu voté ñu nek mois de mars trésor public di ñi xaar gaaw yónni ni Touré gaaw à l'étranger mu daw wuti ji ay financement pour ñu xojaat ñu dafi amee suñu alal day génn de ku rey nit yaa xam man topp ma ku rey nit topp ma ku violé topp ma ku dambaate topp ma kenn mais xaalisu réew mi laa leen ne alalu réew mi alalu réew mi gars yi day génn de politiciens yi nag du mu leen nëbb ñu bëri dinañ ci profité nekk ay opposant parce que ñu bëri commencé nañ ma woo no boo xamoon eh je m'en fous si su ma xamoon xam nga man lu ma xam xaalisu réew mi ñu leen laajte su suuf ci pet ñi nga xam inspecteur yi commencé nañ tàkkal xam ngeen bu baax yu may wax yeen dage yeen dage ministère yi fexe leen ba débarrasser seen bopp kayit yëpp génne leen teg sur la sur la table milliards yi ñu xam ni ko ministre bi jëlee ñu xam la nax lan boo leen bañee dugal seen bopp sinon dage yu bëri seront emprisonnés je vous avertis beaucoup de dage seront emprisonnés ah, ah gars yi ministère yi dina toj éducation nationale nag mooy sama ministère foofu moom. les meilleurs hommes de l'éducation nationale njaga ñaaw lañ dëkk ñuy jifeer ñoom Joseph Pierre Ndiaye ñoom Alphonse Diop les meilleurs hommes de l'administration laa la wax ñi nga xam depuis Abdou Diouf ñu ngi ministère nekk directeur de cabinet kenn mënu leen lal Mary Teuw Niane xam na lu may wax félicitations mon père bi may jooy fii Mary Teuw Niane foog nga jege booy yi foog nga jege booy yi boobu élection amul woon Sonko bokkul woon Diomaye bokkul woon boobu ñu ngi woon mois de septembre bi ma naan les intellectuels Père Mary wu ñaan foog mu ñëw foog mu ñëw moo tax bi nga nekkee candidat ñu éliminé la ma ne alhamdulilah Père Mary Teuw Niane foog mu bokk. ndax man niveau sénégalais yi ku ci nekk pas yi nga gis ku ci nekk sa bopp xam naa ko ku ci nekk dama la xam maîtriser la am na beneen père bu dee Cheikh Birame Sarr moom it dina ñëw c'est le meilleur sénégalais au monde troisième bi c'est une ñoom ñëpp Sonko foog ñu ñëw ñooñu ñooy les vrais hommes te ñun bi fi Macky Sall ñëwee lañ dem seen yoon zéro na fi ngam kay tàgge Macky Sall bi mu ñëwee la ñu gedd état ay ñoom Pa Alphonse Diop ñu ngi dund waa ñaga ñaaw les meilleurs directeurs de cabinet des ministères de l' éducation nationale lan moo leen fa jëlee politique parce que ñoom du ñu politique postes yi nekkatuñ ci ay politique foog ñu taxawu gaay liggéey diaspora diaspora tànnu député bi tanu député bi bi ba buñ ko défé fugu tanu député bi sen nationalité gaay fuk mu genn non gaay nak duma du wa de PDS ñu bari sax dañ leen ni tejj de ñu bari ci PDS dañ leen ni tejj man mënuma ma wax lepp parce que xam nga rek ngor ngor la mais dossier na fi ngom Keïta gars bu <laughs> bu toogee ministère de la justice procureur Aliou Ndao delluwaat wat fam war dellu ah amo frère. <laughs> saa i dëkk bi dina toj de xamu leen sax luy daw nii dëkk bi dina toj. ngay <laughs> di ngeen fi gis ay sàcc yoo xam ne dinañ jël gaaw xaalis dem suruxal ko si suuf remboursé kenn du wax lépp am na ñoo xam dinañ signalé wu dugal ay milliards ci état xool nit nu mu yoree milliards. ba tax ma kisaal demal boppam am ñu fi bàyyi il l'a fait exprès foog xaalis bi kii pour ñun nag ak suñu diaspora yéen laay waxal de député il sera carrément sénégalais même buy liggéeye fii diaspora bu Sénégal amatee commission des lois bu Sénégal amatee assemblée nationale dañu bëgg suñu député bi jaspora dem toog ne jaspora amuñu këyit jaspora carte de séjour diaspora xam nga lu ma métti dañuy d'accordul tubaab li mu wax ne ñun ay sans papier la ñu nekk suñu dëkk. nekk le foutre-tout de l'Afrique ma gis ñu traité Tahirou Sarr lu nekk. te lu Tahirou wax fala la décomplexé yem gars yi il faut il faut des visa waaye léegi man Sénégal man je prône pour que français bi fiy jóge ñëw fa war a am tey visa tourisme ñu koy fay loolu moom jeune ne badine pas là-dessus foog ngeen fay visa yi français foog mu am visa français yi fee ñëw dëkk si toog tabax naaj yëpp ma bañ ñun amuñu ko fii suñu yaay yëpp suñu pap yi fii ay baayu quatre-vingt-dix-neuf ans ngay am fii yow mi étranger doo mosa moom sa kër français moom moom sa kër fii bu ñu la fiy suul juddoo woo fi juddoo woo France laa la wax am nationalité buñ la suulee suuf siñ la suul dañ koy loué say waajur dañuy fay chaque un an dañuy fay lu cher moo tax africain yëpp di préféré ñu leen di bëgg a bëgg a andi ci kees Afrique de. ñu bëri seen doom yaa ngi fi mais lan moo tax ñu leen di suul foofu ba suuf biñ la suul da koy fay parce que dëkkoo fa juddoo woo fa boo amee seen nationalité juddoo fi moo am fi France. pour lan ñu nanguñu ko nangu Sénégal. bu leen français daf fay dee ñu defal ko yëpp commémoration suul ko te ñu amuñu droit fii est-ce que di ngeen mos a gis un sénégalais nationalité sénégalaise ñëw di liggéey gouvernement France du mos a am. kon nag Ousmane Sonko sa palais boobu bi may dugg palais man nuyu naa Kadhafi biir palais nuyu naa Nelson Mandela biir palais nuyu naa Mohamed Sis biir palais. ak kan yeneen président congolais boobu woon waaye président yi rafetoon yooyu te mu daan sant nuyu naa ko biir palais palais présidentiel. bu accueil présidentiel doon am temps Abdou Diouf président président yi bu ñu daan ñëw dañ daan teeru biir pare lañ daan dem si l'un des rares des jeunes bu ñoom tonno Amath Dansokho ñoom a bëgg a bëgg woon yóbbaale nuyu naa président yu bëri biir palais palais boobu nag mun ñu depuis 1960 les mêmes têtes ñoo fay job déedéet il est temps que nga jël jeunesse bi ñu former leen xam nga man lan lay bañ toujours y a les mêmes da ngay gis pas bu retraité ba xob bi daas ñenn ñi ñuy deewee à 85 ans teg ko fan maintenant et la jeunesse qui a fait ses études et cette jeunesse là on doit pas les former est-ce que waruñu tey paa yi nekk pare dem retraite yëpp am 60 ans nous ñu jël leen jubilé leen ak benn jeune mu nekk ci bureau bi mu formé un an deux ans nous dem noppalu te tax si et on va le faire. préfet yi gouverneurs yi mu ñëw ci yéen éducation bi des na lu bëri te préfet gouverneur yéen laay waxal. li nguur daan nanguloo boo leen ko bañee dimbali nguur maanaam waruñu leen def ay chiffon yéen ñi commissaire di commandé troupe yi leen nguur daan nanguloo boo leen ko bañee dimbali nguur yow mi général de gendarmerie li la nguur daan nanguloo bunkeriser Dakar boo leen ko bañee dimbali nguur boo leen ko nangoo sànq nguur yéen tam nguur boo leen foggee ne looloo defar réew bunkeriser Dakar def fépp ay gendarmerie mu ngi noonu yoonu palais de la république dañ ko bloqué teg ko fan te muy suñu palais ñun sénégalais yi ñoo koy fay li fay nekk si courant ak ndox yëpp ñoo ko fay ki fa dugg ñoo ko fa duggal suñu mbindaan la mais foofu yëpp on la bloqué ne leen seen mbindaan la leen gën Sénégal kese la loolu am yooyu yëpp foog ñu changé ko pour nekkaat ci beneen genre état gis gis nga ma rupture dama gis ñu ñëwaat ci temps Abdou Diouf ñëw palais photo woo garde rouge dem visite dem yóbbu élèves yi ñu def ay visite bind visite kii visite sortie pédagogique man yooyu laa gëm mais pas bunkériser le pays def ko comme un pays de guerre gëmatum ko te Ousmane Sonko mi ma gis moom bi ñu tém uraawam dina ko may mu wàññi bunkérisation di pays foog ñu wàññi bunkérisation bi ministre yu ñëw nag ministre yu ñëw kii gère éducation Je sais que l'éducation sans formation égale à zéro es diplômé Afrique boo en Europe nga que tu n'as pas de métier tu es un sous-homme n'as pas de métier tes diplômes ne te servent à rien bac du métier ay bac plus du métier le métier à partir du BFM d'abord ñeme nga kaas lool mais ba tey dégguma formation à partir du BFM élèves on commencé pour de bon Qui électricité électricité Qui bâtiment bâtiment Qui la banque finance la banque finance Qui même qui la restauration à partir du BFM on la restauration coiffure bac coiffure c'est que que nous Sénégal fuck ñu Europe professionnel ils ont sacrifié toute leur vie en Europe nekk ci chantier yi di jàngale ba léegi ay formateur lañ ay ingénieur ñaata jeunes sénégalais ñoo nekk tey SNCF yore seen yore ereeru France yi di ko dawal combien de jeunes sénégalais ñooy liggéey SNCF combien de jeunes sénégalais ñoo nekk RATP gars yi foog ñu développer dëkk bi développement boobu ça démarre par l' éducation éducation nationale moo war a former les hommes qui doivent construire, construire le Sénégal. Ça, ça revient à l'éducation nationale, ça ne revient pas à l'armée nationale. Parce que l'armée, quand on fait 18 ans. L'éducation, c'est à partir de 6 ans. nañu wàññi matière yi def si xelu xale yi métier ngir yàlla def leen si xelu xale yi métier gis nga xam nga même la logistique la port la nga logistique mooy docker yi ngeen di wax yéen journée 3000 lañ milliards yi génn port mbaa xam nga ne tey port antan na tey heure mille cinq cent franc wala heure mille franc barki sëñ Bamba billaahi walaay talaay billaahi wala talaay ñun dañu def xoola ay dañu bind c'est que man nekkuma ak ay boo yoo xam ne binduñu déedéet ñun dañu bind teg port mën na la fay heure mille cinq cent or port docker tey war na tey jomb tey di fayeeku tey Sénégal trois mille francs tey journée maa bañ maa bañ je refuse maa bañ tey métier yooyu tey foog mu dox Ousmane Sonko tey boo changé tey décor tey palais bi jël tey sëru rabal yi jox ko tapissier ñu créé ci ay matelas ay fauteuils yu bees ay yëpp lu bees tout marche tailleur yi intendance jëlal ay tailleur dugal leen intendance tenue militaire yi li ñuy jënd tenue militaire fii c'est ex c'est trop te xoola potentiel boobu yëpp a ngi Sénégal mais d'œuvre bépp a ngi Sénégal ba pare man moo tax bu ñu ma naan dañuy créer ay emploi te emploi nekk seen kanam di leen xool ñoom ñu koy ñëw di jox tubaab bi ba daalu militaire yi fii lañ koy jëndee di ko def si conteneur yi muy ñëw gëw ma ko à partir du BFM war nañ commencé teg xale ci axe former des cordonniers professionnels ubbiwaat usine bata bu nekk yoonu Sococim bi booy génn Rufisque à droite Yarax usines yi fa tëj yëpp ñu rénover ko kër yi fa nekk ñu toj leen parce que ce n'était pas vendable zone industrielle la société bu fa nekkoon kër da ngay ñàkk dañ koy toj génnee la fa dem wutal la foo dëkk mais pas foofu zone industrielle la. emploi baa ngi fi mais si ci kaw ñu fexe am made in Sénégal te made in Sénégal duo bi mën na ko def xam naa lu may wax. made in Sénégal ce duo là va le faire et peut le faire ñun ñëpp buñ jàppee man métier laa gëm gëmatuma seen diplôme bac yi ngir yàlla ay bac arabe jàng ji Tunisie maa jàng ji Égypte c'est bien beau mais tu n'apportes absolument rien au pays encore une fois tu n'apportes rien au pays dara andi woo ko ci dëkk bi am na boo yoo xam ne man sama booy bi dafa tudd suuf dem Matam laal ni suuf bi di ma décortiquer suuf bi di ma wax suuf bi ba ma ne ko booy pour lan nga ñibi si waat Hollande mu ne ma yee eh, grand Sénégal fii doom dara ñibbi si waat na nii Hollande koo xam suuf suuf lay téye suuf wax la suuf bi mooy kan suuf bi diw mooy maamam suuf bi lii lay pëp produire ci lama wax ba ne suuf boobu boo wissé bëgg défarat souf nord bi ni jor gi da ngay ñëw souf matam ngay dem tibbu souf ñëw défarat ko engrais jaru sax jaar fenn da ngay ñëw rek diko ko ay côté Gossas Kaolack fofu yëpp mën nañ ko défarat environnement bi défarat souf ci ci kaw lan suuf bi nekk matam limu contenir mo bari walé ñoon ñëp dañ fi nekk foog ñu wolé zendu ñu ñëw di créer indu ya ñëw créer nord kaju bi bo yàngeeg lepp par pour lépp mais xool noix de cajou bi même noix de cajou indo yaa koy gérer gars yi jàngi leen métier bàyyi leen ma seen bac la jeunesse. ministère de la jeunesse Ousmane Sonko ngir yàlla école de métier yi Ablaye Wade ubbi woon te mu takkaloon na case des tout petits gars yi lekk nañ xaalis bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. bu gosaas matériels yi bees saakaa fa nekkoon matériels yooyu xoola gars yi dañ ko mujjee jaay jaay ay matériels yu jar ay huit cent millions la fa Ablaye Wade dugaloon. il faut que ñu le Sénégal pour nous défendre ko métier commencé pour nous défendre que dévouement personnel lay commencé éducation xam y avait une ONG privée où monsieur Touré éducation parce que l'inspecteur... chaque 15 jours nous e jours j'avais monsieur qui venait contrôle contrôle ce qui fait que tu es obligé d'être carré tu es obligé d'être sur la ligne man loolu la gëm mais loolu kan moko guenné Macky Sall ñeu def leen ñoon ñep ay politiciens poste yi nag ministre buma gis nga politique ministre man buma dajal ci terrain politique wala nga ñeu di wutat ay base politique ay ties ak Birame solo job je t'averti de dem di wut ay base politique ay ties ak on oh, va vous emmerder les monsieur le premier ministre tu es devenu maire de Ziguinchor ah léegi nag il est temps que nag suñu mairie tam nga am confiance délégué suñu booy yi kenn mu dawal à moins que Cheikh Tidiane Dieye bàyyi poste am président conseil régional ñëw ci mairie bi pour ñu libérer la yow nga liggéey parce que t'as du pain sur la planche. Sénégal li ñu sumb nii pour mu takk carrément foog nawet bi passé parce que fii ak nawet bi audit la ñu mun def préparer nu ñuy songe nawet bi gagné nawet bi à partir de septembre nag bu ñu changé assemblée nationale.

Félicitations à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Félicitations à tous les membres du gouvernement. El Malik Ndiaye la laa gisul ci liste bi ndax El Malick moom loo ko mënti waxal moom l'homme de dialogue tu ni mu maîtriser Dakar Ousmane Sonko maîtriser ko Dakar kenn maîtriser ko Dakar Abbas Fall El Malik Ndiaye c'est des éléments essentiels c'est des éléments essentiels du gouvernement bi ndax tous ñëpp la ñuy waxal ñëpp les jox ñep lañuy déglu kenn le chef je te laisse en paix maintenant géral suñu réew bu dof parti ba lu a ci yoon bureau politique pas de régler vos problèmes de parti au palais les problèmes de parti ne vont pas se régler au palais dem leen seen bureau politique ni ngeen daan ngeen ko fa pour ngeen au cas où nag ngeen bëgg andi xaaj ak seen problème day am seen biir yéen da ngeen am yéen am ñi ngeen àndaale seen biir kon yéen yéen la ñi ngeen àndaale yéen ñëpp la kon chaque fois rek ñaari réunion mooy am yéen seen décision ak yéen ñëpp seen décision kon yéen seen décision ak yéen ñëpp seen décision basumo basumo mbare su ko non ko abidje iba faamale dia rax day tas kër koorax sa njaboot mu diviser leen nafiyu nafiyu